kadi daal moo bëri doole kadi saf sell te C'est assez Équipez-vous à petit prix. Au Royal, Burundori. Saint Gold une nouvelle vision de la bijouterie. le best du prêt à porter. amna huile amna AO kër ni jaay seen ak jay senak. jaay seen ak Senak. qualité c'est garanti Kerni ni Senak. seen ak ni ma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 Yamina Collection, Ruby, l'horlogerie sénégalaise, MKB Store, Ara. p a papa doo ma wuyu nag maa ngi wax yow depuis sànq fàlle woo ma. maa lay dégg. faire, je peux le faire. Allez Aléhati, ton premier jour vers la liberté. Leila Leila moi yow kii ma ngay matinée là doom day mbaa du ñëw faa bi nii moo la feebar nii eh nañ waxante dëgg nag gis nga sa gémmiñ bu xeeñee sa doomu ndey la koy wax man nangu naa sax nag nga bàyyi ba faa ñëw nga tegal ko stratégiser di boo ko tegalee stratégiser di bu ko defee nga tegal ko ndëgg sërëx waaw kay loolu nangu naa waaye nag tas sëy ah, du la jig doom yaay du la jig de man dana na fekk fekkoo mu fu ñu tase duma ko sédé sama tank du deug fuñu tassé sey nak, ndax nak aduna nak dara yagul dom yaay da ngay dilu sa xel dañuy foni rek waaye yow man du ki lay waxal wala sa muuma dañu wat ah de Leila maandu de laa woote lu ko dal ah sama xalaat de dara baaxu ci sama xel ñaaw na lool lii ma gis Leila ça va xanaa demoo sa stage bi ma war a def foofu laa war a dem nii. xaw ma stage nga jëm xaw foo jëm waaye boo demee na nga am fulay fayda goo xam ne boo stage nan la fay nit dangay wane sa bopp boo demee ci bërëb waneel fulla ak fayda macha allah tu es élégante belle waneel sa bopp dem ak jàmm dikk ak jàmm. nga lu ma jaaxalam man de changement bi ma gis ci yow ma jaaxal say lex duuf na de say lex dëll na yabu la nag dama lay laaj dong waa lii laa Babacar daa ñëwa yow nag bu dama la woon kanamu ñàkk fayda mu mm, mm, mm, waxuma la lool de gisuma ci yow daray ñàkk fayda mais parfois changement day ñëw ndax damaa gis sa kanam gi mel ni noonu la wéer mu duuf lool say wenn copp volume teg ci ah say fàmm taxaw waa loolu lu muy nuru incha allah nabu dama ne nga génn sama nekk ok xoolal dàq nga ko am jom ci bitti toi aussi door allo waaw mère waaye mère danga may def ndànk na mënuma naaw de maa ngi nii di ñëw waaw léegi nag doo doo ma def ndànk tamit damaa mën a man damay kinne yëpp maa ko def doomu imaam ànduma ak moom daayira ñu koy wax ay man kaana lillaahi kaana may foo ak moom boo koy ëmbal nga jëm fajaru nga de. lijjanti sama avenir. li jëndil bu baax de yàlla sa bos bu mel sama bos man moom sama avenir dañ koo oui. hey Léla..! bonjour docteur. bonjour. ça va. ça va docteur. comment vous ce plaisir. barou Watch out. Il Ça va Excuse-moi, hein? euh, là je me la sax géré depuis ce mariage. Je ne sais pas si je suis mais j'espère que tu gères géré ah àdduna de lu metti moom yàgg na fi waaye taxul sa mettit nag wàññeeku dëgg la ton malheur c'est ton malheur euh, li ngay ressenti yow rek yaa ko mën a xam mais courage à toi xamal ne loo mënti soxla rek je xëy là pour laa koy waxee xaw lan lay wax sama papa ak sama waa kër. d'accord respire s'il te plaît andal ak dal mais ma jàppale la ci naan j'imagine que sa fiancé bi moy papa ji d'ailleurs est-ce que yëg na ko sax moom. daf ma abandonné daf maa ëmbal ba pare dem te li yow rek yaa japp docteur. sinon lii man xam ma fan laa koy waxee sama àdduna yow rek laa yaakaar. àndal ak dal bul ko garder. nan bëgguma ko garder damaa bëgg

li ngay wax ni yenul benn yoon maanaam te li ngay def ni xaru la déefu julit julit day gëm yàlla rey la suñu borom daf maa fàtte ndax woon du bàyyi may dund coono àdduna yi yëpp may dund yow mënoo bàyyi li ngay wax waaw jógal yow rek laa yaakaar docteur soo ma dimbaliwul damay xaru. écoute Léra je suis vraiment désolé mais du lu may mën je pourrais pas. docteur xanaa ko sama dund bi am lu la njëriñ. si bien sûr. yow bëggoo ma dund. si. docteur man damay xaru tàggu naa la. non yow xam naa ne dootoo ma gisati. bàyyi li ngay wax bu la fa. Oui, mais attends, ha ha. doucement doucement man du ma def avortement mais je peux te mettre en rapport avec quelqu'un qui pourrait le faire. Donc tu vas m'aider. Oui, je vais t'aider. je duma ko mës a fàtte yal na la sa yàlla su ma Tu veux bien me donner le numéro s'il te plaît parce que là j'en ai vraiment besoin. C'est vraiment urgent. Je vois que vous avez d'excellentes notes, mademoiselle, avec un parcours scolaire très excellent. Même si vous avez raté la mention au bac, mais ne vous en faites pas. On va vous aider à trouver le bon école au Canada. Et aussi, on a à vous proposer deux packs. On a le pack gold et le pack classique. Ok. La caution pour le pack classique, c'est bien 3 millions Oui, c'est bien ça. Et pour la prise en charge, il n'est pas nécessaire qu'il soit de sa famille. Il y a mon oncle qui est là-bas. Est-ce que mon oncle est en charge oui, si ses papiers en règle et une bonne conduite financière, c'est bien possible. J'ai à vous préciser que pour les deux packs, ils ne sont pas égaux. Pour le pack Gold, les chances sont maximisées pour l'obtention de votre PM de doute et pour le pack classique, les chances sont aléatoires. Merci de votre temps. Nous vous reviendrons, Inch'Allah. On vous attendra. Ok. Allez, merci. Au, revoir. Vou concentrar é eu como mu sana é Boyan ama o... Evet, sen normal Sana fiskı. waxuma la fii nag fii laa la wax. da nga yabaate. Hmm. waaw loolu la waxuma loolu de <laughs> yaa ngi fàttali ko <laughs> taa yi ngay sol fii di check down xam nga di jaay garçon manqué et tout yow sa dossier maa ko yor te nga maa moytu. période boobu la ma ma commencé di ma woowee booy ba tey mënul fexe ba bàyyi ko. <laughs> mais c'est normal taa yooyu moom da ngaa góore woon ah te nga ma ne wax nag Mariam di la toppandoo. ngeen dugg ci biir kër gi rek paa bi yuuxu kay laay laxa illa laa <laughs> subhanallah na ma yàlla musal ci ay seytaane samay doom <laughs> pour moom xoola ñun ñu ngi de l'autre côté jaat nañ ci waa alphabet bu yàgg waaw yow moom yàq woon ga mais ndeysaan paay loolu rek la ñuy ragal seen doom moo tax Cédric soo ko waxee bébé Aïcha xale góor yi la gën a nangu ay ameen yu rëy la wax nan ah dama xam ne ma tuddu Cédric rek sa kanam gi commencé di sens nii ba mu sotti. arrêtez sous-entendu dégg da nga mën yak les lees trop yow. Hmm. alaykoum. ba tey baax baax. Ah. Lay, Awa Cheikh. ça va Falia Awa Cheikh Awa Cheikh Falia sama cousine là. ça va ça va bien ça va alhamdulilah. vas-y viens t'asseoir. merci tooga. ça va.

yërëmtalu génnal foofu noonu. waaw yow daal doo changé. man ça va de. waaw alhamdulilah mais je trouve que c'est normal euh, ma ñëw seeti la nemmeeku lo xool noo def après tout ci jamm lañ dëkkee won tu as raison et euh, vraiment j'apprécie parce que mon na la see baña fek ma mbaa yaa ngi xalaat sa delu ci ci kër ga. aw Cheikh dañ mo muuroon bi may dugg si te biñ koy def dafa am ci ponku yu leer yuñ ko tek parce que du won aada kese. lépp pour cëral jigéen xam nga man ma sama bopp su ma mayoon sama bopp sax ñu mën a wax mais Xalil bi mu bëggee dafa ñaan si te bu mën a namee tamit dina yónni ay kilifaam ñoo ñëw jël si ma rek. waaw mais yaa ci xalaat sa bopp mbaa xam nga ku nekk tey fi mu tey di xëcc su yàggee mbaa du leen gaañ ñaar ñëpp. gis nga àdduna bi lu metti daf fi yàgg te mosul rey kenn. donc soo toogee nga ne doo dund lu metti gis nga soo ragalee lu metti rek doo sonn te soo sonnul ci mbir du la jëriñ tamit. waaw loolu moom dëgg la faa may nag man je trouve que dañ koy fal bañ ko yenu ndax àdduna am benn solo te jàmm la lu tey jigéen su fayee mu mën a waxtaan ak ay mbokkam te xam ne place am jotu jëkkëram la ñu delloo ko ko lu tax ñu war a jël wékk ko ci jëkkër ji. xam nga danga ma posé question réponse bi yaa ko nar tontul sa bopp nga yaakaar ni tey jii nii jigéen bu fayee jóge kër jëkkëram ñëw kër ay mbokkam toog fa lu yàgg gisul jëkkëram yónneewul ay mbokkam tamit pour ñu ñëw nemmeeku ko xool ci lu mu nekk mu takkaat ay bagage am roñu delluwaat kër gi nga xamante ni fa lay sëy nga yaakaar ni ko kooku noonu dinañ ko respecté dinañ ko jox cër bi mu yellool Je na am solo si bu baax Oui, ma tegal débat boobu ci suuf waaw de ah Je rek laa bëgg su ma gisee jël xoolal instant bii nii ci affaire crèche mais je suis sous les paparazzi bi yëpp maa ngi ci suuf ça va s'empirer

te yaa ñu jàngaloon ne luy boole moo gën luy féewale ba tax na ñu ñëw fii tey seet si la pour ñu xool nu ñu demee Kër Faa jëli suñu soxna. waaw ni ko Bakir waxee rek noonu laa koy waxee waat ndax wax dëgg yàlla ku ne xam na ni man ak Xalil si xëccoo leen dëkk waaye yàlla seere na ni jàmm rek laa ko yéene te instant bi ku ko xool xam ni soxla na présence Faa si wetam. Mhm. mi ngi noonu. loolu moo waral ñu ne nañ fi ñëw waxtaan ak yow nga xelal ñu si daal nan la war def. sama xel dal na lool ndax li ngeen def ni dafa rafet te lii dong la mag mën a rakkam ah soxna rafetlu naa seen tànk yi ndax wax dëgg yàlla yéen a xalil yéen a bokk benn baay ay rëcc rëcc nag ak ay xiirook ngaayoo amoon na seen diggante. waye bamu amé problème bi da ngeen taxaw taxawayu bay jappalé ko kon bok kilifa gu am li ci sa kër rek war nga ko sante yalla waye day buma sañul ñu xaar tuuti soo ko hmm? xam nga ni digënté fa Bintu ak leila dafa am ay rëkk-rëkk te damay ragal rek xol yi bañ a tàppe te xam nga Leyla wuyu ma Leyla may bàyyam te dinaa wax moom lu dugg ci noppam yéen nag su neexee yàlla suba ñu jëli seen soxna comme li ngeen ko bëggee bu soobee yàlla jërëjëf kon ñoo ngi ñëw dem waa kay dénk naa leen yàlla Votre série revient après la pub. Kadi dal mo bëri doole. Kadi saf sell te wóor. nii la mel ah xoolu taaw ah nii nga def. xoolu taaw ah, nga ni. def ni. merci. neex na ah sama jéeg bi. 2017 dal leen seen xol ak punch seetaanaale seen série Babel. resto ataaya bi boole ñëpp.

Cinq semaines. Cinq semaines. Là, c'est risqué quand même. Mais bon. lu tu nga bëgg l'avortement..? def avortement viol la inceste walla yow yaa ko inventé docteur dama lay fay nga defal ma sama soxla soo ko mënee tuddee noonu bu fekkee ne tamit mënul nekk bu ma perloo sama temps. yow danga ma nuróog ñi nga xamante ne duñ jàmm seen soxla quoi bi ko moo ñu boole cinq cent mille la nu muy demee comme ëmb bu bees la du aajo intervention dama lay jox ay garab ak traitement booy suivre pour une semaine mu arrêté segment bi on d'accord. wuyu ma li nga wax dégg naa ko waaye dafa am loo xam ne mooy suñu taxawaay waaw sol suñu daal dem kër Faa Bintu gisee ak ay kilifaam waxtaan ak ñoom xamal leen ne lii am ni dara neexuñu ci. yow lii dal faa bintu su daloon lay laal est-ce que di nga bëgg waa kër ci këram defee nii. déedéet sang bi bañ ma faa bintu ñëw de ndax mooy xolu jëkkëram Layla doom la te dañoo war a lijjanti digganteem ak faa ndax damay bañ faa du toog tuuti ñu dellu ca lañu nekkoon te bu boobaa du la neex du ma neex kon nañ lijjanti seen diggante ba mu leer ndax xam nga jikko su dee loolu rek na sa xel dal bul am dara loo ciy tiit dinaa wax ak Layla loo xam ne dina dugg ci noppam te dina ko jëfe cette fois-ci. ah kon baax na sang bi comme ni ngay waxtaanee ak Layla rek nga waxtaan ak Fabintu ndax xuloo moom ñaari ñu a koy def.

yii yii nga si bëggoon ay dégg wuy ma ma sama jàmb de yow doomu immeuble yow amoo jom de bàjjen tomate la ngay ya, defee ba mu leer ya? you. marché boo dara dara dara dara lépp a seer loolaal mu yokk jën doxatul seer na moom daal loo rek ak njëgam tamit yow xanaa yow laay kan? waxal ah kon man ngay waxal nijaay Maodo maa ngi yow fi nekk su ma waxtu yow kan laay ya, waxal kan? ah man damaa yaakaar da waxtu rek damay waxtu mel ku dof. adit déet dëkk bi kat fi mu ne nii dof lañ ndax dëkk bi daa metti yow de nijaay Maodo xanaa su ma doon waxtu sax di nga ma woon ma dem kaay ba ma ñëw nga ma dem toogal lan moo la dal lu naqar looy waxtu yow daal nijaay Maodo nii rek nga bëgg nekk ak man nii Marème ki la doon puusal ak di la paasal yow ak seen waa kër yéen a def benn seen groupe wax ba génn ko kër gi ñu ah. fat bintu eh, xoolaatal li ngay wax lu may xool ci li may wax yéen a ko def te war ngaa xam ne yow Marème sa jën yi ngay jaay baaxul fat bintu du ko doon jën di la sagal rek social li ma doon jaay baaxul waaw topp sa rakk ju réew jooju nga xamante ni amul yar amul teggin li jaay moo nag dëgg la sax faat bintu pousse nañ ko bam genn génn kër ga waye xam nga ne yow man lolu gënalu gënalu ma de nak man fadu dama ko taf sama bop di waxtaan ak mom di di sok mom waye na dafa fekk dafa la lo xam dafa jégué sama xol muy sama deret di sama rak lolu ma sotloo rek lolu do nga ma sotloo waye du lenn légui nak baye bo nga sakki pexé baye bo ngay ngay naafile goudi di wor bëccëg bolé ci nak lenn di ñaan yalla nak njugo am me ak domam ye dem kër ñum fat bintu di waxtaan ngir jamm ñew bay bo nga ñaan yalla ñaan gi nangu ndax kat moy ko mu tumuranke dina dugg ci bir kër gi dana ñu dene dana ñu fadde te xam nga ni fat bintu lim man fi kenn mënu ko yow nag wax ak yaw wax ak yaw nak jotna ndax lu upp tour na touru tay ji lay tour na touru tay lay tour yow ni jaay mo kriftef ngay wax yow amatu li nga doon soo cliff teef gi ngay wote njuga meeri dem ak wa keureum dun la fi ba yow yaay dem yow mi yaay dem ko rek la ko waye ñak mat teef mo la ko yóbbee tëjal ma sa gemign so amé sa problème na yem ci yow te yow marem yow kan nga tambali sax may wax nga ci teg bat waroon nga am maari sey jënd yow waroon nga am kersa bi nga ma koy wax yow buma gaddo pan di jaay jënd dem ka dik yow yaama ko yobbe keroog bi la bëggee tëj laa jaay jën boole ceeg yàq sama ñàngu doom Cheikh Tidiane Kassé jàngatul bu am avenir xam fu muy teg tànkam nga xañ ko njàngam xañ ko la. yaa lan laa dégg. lan say nopp foroxul de. yow yaa sama jàng ndege de. waaye déedéet waay. kon man maa ngi doon a comprendre li ñoom xarit ak yaayam di ngoo di si kër gi kon lii ñëpp yëgul nañ ko man kese maa ko yëgul woon. papa léegi yow la ngay xaasi man. doo dem soli sa yére yow tamit. doo nitu dara. yow yaa du nitu dara. bàjjen tomate. ça va. instant yi jot nga balcon bi de. yéen la. yéen mënoo leen ma may sama jàmm. gisul leen ne j'ai besoin d'être seule. lu tax ngeen fatt ma.

ah doonal ya, ma bàjjanam nak yaral ma ko. yaa ngi juum de. sina ki mam kay nga ko man mi may bàjjan bis. yi wax nga dëgg la laa bàjjan tomate wara do mam nak ndaw mam bu jeune maamu poupée maamu eh. lay woowee maam betterave nag. xam nga gara nga réew. ii ma ji lay naan. maam bu bëri affaire. ii moom beneen ko fii dugg ah, la. def. Thiam. foog naa xam nga li ma lay doyee. gis nga suba su neexee suñu borom ba faa ñibbisee dama bëgg ñagas ñagas ya nekkoon seen diggante yépp nga jël ko teg ko fële sagesse ba ma xaman ci yow nga delloo si ko ngir yow waaye ngir sarak te nag Leila yaa ngi seetaan sa xol muy wow. te du yoon te sa xol di wow moy wor sa xol te bés bu banex ñewé ah doto yek jaf ko ga ba koy mën a savourer waaye yéen ko aaya tey. Mm-hmm. Eh, reer bi daal neex. kii réglé wu na moom reer bi moom neex na. na rees ak jàmm. sànnikatu xeer bi moo aye. <laughs> waa tata kaay ñu waxtaan sama yaay doo koy fanaanoo si te plaît. waaye. bien sûr. xoola nañ koy ay ayloo yow soo su tonton aywul si yow mu fanaan si yow su aywul ci taasaadia mu fanaan ta ah taasaadia doon faale tamit su aywul ci yow mu fanaan ci yow man tamit kii génne naa ko si parce que moom du bokk ak kenn néegam. tey wax génne ma ci. xandoor yu metti yi mu nekkee mënut mu koo muñ dama cee sonn. Eh, Faa yaa ngi wax de. Mm-hmm. Faa yaa ngi tooñ sa yaay de xaa li ngay waaj a dellu moo tax. mbëgg a ñibbi. moom dellu bi dafa wóoragul sax. Ah, lu tax. ah noo ko teree wóor. ça dépend rek ci ñi fi ñii di indi suba. Oh. waaw il faut mu leer ci sama bopp ba ma xam ndax Ndiouga Thiam moo jël propre initiative bu boppam pour jël si faa wala xali la ko yebal ndax yëf yi nag bu demeewul ni mu war a demee su faa delloo dafay gën a sonn day souffrir te man loolu duma ko supporter. su koy ne yow Ndiouga Thiam jël si ko ak jëkkëram jël si ko n'est-ce benn la. waaye yow nekkul benn. fan la nekkee benn mosul doon benn xalil Thiam mi jëkkëram mooy bëgg. papam dimbali ko ay mbokam jappale ko ci gis nga man amna na xamne duma ne ko nangu nak fami duma du nangu mu delu difa gëna sonu duma ko nangu man bokuma ci jigen ñi maye sen dom ba pare naan ay yaxam la len laaj man laajuma ay yax de sama bonheuru dom jamam, ak salamam lol lay wut fa habintu jaay yow ex yow pare nga pour delu Fatou Bintou bi nga fi ñëwee ba léegi yow kan moo la fi seet si à part Awa Cheikh même pas un coup de du téléphone sax bu ñu la woo seet la ba xam yow naka nga dundee situation bi man nag am na loo xam ne jigéen ju ko nangoo teg doomam man duma ko nangu te nag benn bëñ day weex. waaw wax nga dëgg nag benn bëñ day weex tàll. dëgg gu wér peng nga wax. ah yàlla bax na kay way lolou yeb tamit bu weesoo tamit ya mi tamit tamit jotul tamit ñu wax ci yow yaangi melni bokko ci jotaay bi yaangi retane rek yor sa telephone bi ken xamul ci la nga nek Falyaa moom foko fek mu ci telephone tim ko di re rek man li ngay re sax nak la xamul la la ta nak du tax nga présenter ñu kenn mosoo ñoo présenter kenn. at si rek. da jara dompat eh fal dompat. fal ya eh. di yow laay waxal lenn dinaa la ko xamal gis nga jëkkër dañ koy tànn waaye famille jëkkër tamit lu ñuy xoolaat la bu baax a baax a baax. waaw su sukkay na. bu ma ne sukkay na baax eh, ma ne li ñuy dund ni man yow mënatuñ ko su fekkee sa xol may na la ngay continuer di xeex ak man man sama xol mayu ma ko man sama mag nga te dama la bëgg man ak yow ñoo bokk ndey ak baay xam naa ni moment yi ngay dund nii sa xol wow na mais soo toppee àdduna bi dafay gën a wowal sa xol faa dafay ñibbi si suba. Eh, su fekkee dafa nar a ñibbisiwaat ci kër gi ngeen nar a nekkeewaat comme ni ngeen nekkee woon je préfère ma ànd ak moom génn kër gi dem jëli appartement. Khalil kër gi sa kër bàyyi la amoo pour di jëli appartement fenn te xam nga sam papa nu mu fonkee ëttam bi tàkkusaanu kër Baabel xam nga nu mu ko fonkee. donc amoo pour dem fenn. tu me promets que fa bu ñu bisiwaatee ci kër gi di ngeen ci jàmm. je te le promets fa bu fi ñëwaatee dootuma am ak moom ben problème inshallah merci beaucoup. kon gis nga ma xaaral nga am ay fenen. <laughs> non je te regarde par la pensée Xamna naa instant yi yaa ngi Khalil mi, semaine passée da doon mer rek di xuloo di fuñaara tay muy sourire rek la mo xew. télépat. Khalipat. <laughs> ah kon wéeroo <laughs> mais ça fait du bien de te revoir sourire. bah il y a de quoi. Hein? ah bon. oui lu waral Lolo? bah parce que j'ai reçu une très bonne nouvelle hier mon père m'a dit que dina leen jëli sama jabar moom ak Sadikh ak Bakir. Hmm. ah ouais eh, loolu bañu ma ko parce que dama na ma sama jabar tamit li ma si gën a neex mooy que sama frère yi ci boppam ñoom ñoo jël initiative boobu ah rafetal ko tu vois et j'ai trop aimé yaakaar naa ni daal jàmm dina amaat ci kër gi. parce que papa aussi nee na ma waxtaan na ak et que dina teg lépp ci suuf. c'est bien.

tunala de te xoolal tey maa lay peene yow. Ya ala ñu kaddu gaa ngi jërëjëf bi ma denké kaddu gi may tambalé sama wax nak ci masawu sama dom ji ndax du jabaru dom rek waye day dom bax ci man waye gën ci jëkkëram lool Xalil muy luma gëm nak ndax su won ci mom man duma ko tippoo tey nag samay tànk ñaari mbir ma yëkkati bi ci jiitu mooy di naqarlu la xew ca kër ga waaye ci diggante jullit ak moroom ma maa ngi toroxlu seen kanam di jéglu ci lii am ñaareel bi mooy ma ñëw jël si sama doom ji pour mu ñëw duggaat ci biir néegam ci kaw ngeen nangul ma ko

koy dox nga tànk kilifa te nag ku dégg nii nga waxe xam ne lii nga wax ci xol la jóge loo gëm la. wane na ni bëgg gi nga bëgg Fat bintu tippoo gi nga ko tippoo dëgg la ci yow te feeñ na itam ci kàddu yi. ñoo ngi lay jéggal bu baax. di la marsawu yow itam ndax dëgg la li xew sa kër la xewee waaye suñu kër la dal ñun ñëpp ndax Fat Bintou mii bi ñu koy jëlee ci kër di ko dugal sa kër xëj na xaaruñ ci woon lu mel nii luñ ci bëggoon ñun ñëpp mooy jàmm ak salaam mu jubóog waa kër ga moo jëkkëram ñu sokkorloo ne asamaan ak suuf waaye nag dafa am lu am ndax ñun ñëpp xam nañ ni doom ak ndeyam dañoo jegeyaatu waaye rawatina doom bu jigéen ak ndeyam surtout nag muy benn doom di càppaa coli lu mel ni su ko dalee fa muy sëy ak yaakaar biñ ci amoon yëpp fokk nag ndey am ñàkk-ñàkki xol mais qui est ce fou ni ngay duggee sa bureau baye Mais hé, hé, docteur, tu es censé sauver des vies ou de les crever. mais attends yow la kan ak loo ma bëggal. yow waxal sa ki, dama koy defal affaire de. dafa am xalé bu jigéen fi ñew dem doon yàq bi. oh sa way. Non, ni boo xoolee li maan naaw. voilà man du ma recevoir xale. du ma recevoir xale. vas-y paa magum jëmm laay recevoir. démb am na ko fi ñew na dafa bëgg avorter. eh waal gaaw xoolal jubluwuma si dara dara dara lu dul jàppale ko ta yalla tax mais nee na dañ ko violer. man lan laa si mën ah yow ci laajteetoo. ah defal nii tuuti yaa may bëgg a res ah man duma ci leen ah nu mu Fat Bintu waaw ñëw nu fi démb ne ma naa ko jàppale dañ ko violé ma koy jàppale te yàlla tax mais léegi lan mooy problème nga ñëw wax man nag ah, nga bëgg a rey jigéen bu jekk xees am taxawaay Fat Bintu moom da tax da fen c'est bon c'est Ibrahima Ibrahima s'il te plaît Ibrahima arrête Ibrahima ay waay arrête li ngay def ngir yàlla jugal jugal jugal jugal s'il te plaît kaay ñu dem Ibrahima ñu dem s'il te plaît ngir yàlla kaay ñu dem. Mary tu as quelle heure ay dara nga kaddu Allah ci jóge yi laaj ma ngi ziar nahnu zalika niko sama mag ji waxe rek non la dafa di nag metti mom bu ñewé day metti lool lool sax té nak lu ñaaw mom fum xass ba am deug deug so bëggé défar bëgg mu rafet faawu nga sama benn bi doyul bay -hmm. <laughs> wax deug yalla ma ko ci deug deug ah mais dëgg la parce que tamit deug rek ay deug xalé bu ndaw duñ la ko denk ngay def lula neex. lenen li moy lima bëgg xam est-ce que yeen xalil mo len yabal pour ngeen ñew waxtaan ci yobul ko jabaram wala yeen yéen xor rek situation bi ni mu démé ngeen ne nañ len demal suñu bop waxtaan rafetal waslu ak. lool mom dama bëgg mu leer ci sama bop xalil mo ñu yoni ndax ñun ak khalil ben la ñu bokk ben dërët lépp li nga xamanteni mu ngi koy yëg ci xolam ñun ñu ngi koy yëg xam nañ bu baax ni namm na jabaram moo ñu fasiyene ñew jël ko delloowaat ko borom kërëm lool moy suñu tank té sa nak comme niko sama rak waxé rek yaakaar du ñew ba fi and ak suñu papa ay tiaxan dañu yëkëti ay tanku jam rek moñu indi te ki dafa sori suñu lool té xam nañ fi mi tollu jëkëram te nak bañ ak ñoo dëkk ñu matanté yow lan la Fatou Bintou lan la. xale doo wéy ñi ngay neewee ka rees nii. Fatou Bintou Ndiaye may naa la sa baat. mooy yow yow kii dafa dof. waaw yow kay ñàkk tegg mooy. mooy xale bi mooy ñàkk kër sa.